Ndongo Sarr maa ngi lay nuyu. Ndeye Comba maa ngi lay fay. Ndongo Sarr nga nekk secrétaire général bu CUSEMS actuellement est-ce que année scolaire bi tàmbali na si conditions yu baax ak surtout ak concept ubbi tey jàng tey est-ce que nekk na loo xam ne lu effectif la ci école yi. waaw euh, Ndeye Comba maa ngi lay nuyu di nuyu seen auditeurs yëpp euh, comme niñ ko waxee école bi officiellement tijji na. mais suñu waxee dëgg rek dañuy wax ne en fait rentrée bi. ñi euh, mu demee dafay wuute selon école yi wala selon également euh, dëkk yi am na dëkk boo dem ay école yoo xam ni soo fa demee effectivement foofu njàng mi door na ndax nag matukaay yi waroon yépp administration yi jël nañ ko ba bi école di tijji euh, daanaka lépp mate la pour ko ñu door mais am na ay école yoo xam ni mbir mi mënu fa door ndax nag école yi ñoo ngi encore ci biir ndox mi wala école yooyu même suñu nekkul ci biir ndox mi matukaay yu ñu waroon jël lu mel na inscrire xale yi balaa école bi di tijji inscription yooyu mi ngi fay soog a mi ngi fay soog a door loolu nag fu mu am euh, ñëpp dañuy d'accord ni foofu jàng mënu fa doore noonu beneen problème bi moom mooy que euh, jàngalekat yi ci boppam doyul. nguur gi ci boppam bi nga xayma li nga xam ne lii moo manqué ci ay jàngalekat ci système bi ci juróomi jun junni ak daanaka téeméer xam nga loolu itam même école yi nga xam ni njàng mi commencé na dina am ay discipline yoo xam ni surtout ci moyen secondaire bi yoo xam ni xale yi suñ ko waree def bu boobaa prof yooyu mën na manqué ci école bi donc loolu itam dafa nekk loo xam ne dañ ci war a trouver benn solution donc très rapidement donc mbir mi daal mu tëddee Euh, ça dépend en tout cas des écoles, ça dépend également des, des, des localités en tout cas donc où l'on mais euh, tey jii kon euh, Ndongo Sarr bu ñu la déggee ubbi tey jàng tey nekk loo xam ne appliqué nañ ko te fait des années ñu lancé concept bi kon tey jii qu'est-ce qu'il faut exactement pour su ñu nee ubbi tey jàng tey élèves yi ubbi mën a tàmbali njàng meeg njàngale mi. waaw ce qu'il faudrait li ñu war def pour que mbir moomu. régler moom mooy que ñu def de sorte que euh, balaa école di tijj ñu jël matukaay yépp ba école yi nekk ci ay anam yoo xam ni nit ñi mën nañu jàng correctement waaw il faudrait que ñu def de sorte que jàngalekat yépp mat il faut que ñu def de sorte que jàngalekat yi mat te loolu amagul il faudrait également ñu def de sorte que euh, suñu defee composition second semestre yi ñu ñaax parent yi ba ñu teel a ñëw jël ci seen résultat doom ci vacances yi ñoom ñëpp ñu bind seen doom nga xam ne su école d'étude bi fekk na xale yëpp bindu parce que tey fi tey soo génnoon nga dugg ci dëkk bi da ngay gis école yu bare mbindu moom a nga fay soog a doog te mbindu moom soo moytuwul dina wéy ba ay fin octobre wala fii ba fin décembre da ngay gis xale yi di bindu loolu nag mënul ànd ak ubbi tey jàng tey donc am na ci système bi. Mm-hmm. aussi bien dans le public que dans le privé. ay écoles yoo xam ni <clears throat> soo fa demee ñoom am na de bonnes pratique yoo xam ni ñëpp rafetlu nañ ko bonnes pratiques yooyu la ñu war a jël ñu def de sorte que école yëpp tënku ci te loolu mën a gëm naa ni lu mën a nekk la loolu bis buñ ko defee mais lii am ci école yooyu ba tax su école tijjee rek ñoom ñu door mais bu boobaa yeneen école yëpp daañu ko fa mën a lijjanti voilà. voilà euh, aussi beneen euh, problème yaa ngi koy laal sànq euh, muy déficit euh, d' enseignants yi maanaam enseignants yi nga xam ni doy tey ji yow lan ngay suggérer état bi par rapport à ce problème. waaw par rapport à ce problème là état bi ci boppam dafa war a jël recrutement yi muy def mu indexé ko ci besoin tey fi tey xayma nañu besoin bi ba nee nañu juróomi junni ak téeméer daanaka la donc il faudrait que suñuy recruter mais ñu mën a recruter de façon conséquente parce que su dee da nga recruter te li nga recruter doyul itam problème boobu mais du duñu ko duñ ko saafara donc loolu il faut ñu def ko maintenant comme mbir mi dafa ni këtt ni jon mu leer ni kat ci école yu bare am na jàngalekat yu fa manqué li ñu war a def mooy ñu xool nan la ñuy def. fileeg bi ñuy recruter ay jàngalekat tàggat leen ba mën leen dugal ci classe ñu xool nan lañuy ñuy régler te loolu pour man mën nañ ko régler ci dem xool ñi nga xam ne ñoo ngi woon ci système bi te dem à la retraite mais seen wér-gu-yaram may leen pour ñu continuer di jàngale ñooñu ñu maintenir leen wala ñu signer ak ñoom ay contrat yoo xam ni daañu mën a daañu mën a def de sorte que fu jàngalekat manqué donc ñu yónni leen fa am na itam ay étudiants yoo xam ne dañu def li ñuy wax ay master d' ñooñu donte master d' enseignement du diplôme boo xam ni daf lay permettre nga jàngale ji tout de suite mais ñooñu am nañu niveau académique ba pare dem nañu école normal ba tàggat nañ leen fa comme ni ñuy tàggate jàngalekat yi donc ñooñu mën nañu leen mën nañu jël ci ñooñu am na fi itam ay école privée yoo xam ni ñoom dañuy former école privée yooyu dañuy former ay ay jàngalekat. yoo xam ne dañu am diplôme mais privé la ñu am diplôme ñooñu itam mën nañ leen jël dugal leen ci mbir mi pour que vraiment déficit bi jàngalekat bi ñu xool nan lañ koy régler en attendant que ñuy former. beneen problème di port du voile euh, ci yenn établissement privé euh, catholique yi euh, yow tey jii pour trouver si solution lan ngay suggérer si diggante privé catholique yi ak aussi état wu Sénégal. man pour man solution bi moom mooy waxtaane waxtaane ko rek parce que mbir mi li koy indi moom mooy que da ngay jékki-jékki rek autorités yi jël ay décision de manière unilatérale loo xam ni du ñu yëgoo wala bu dafay wax wat gaal yëgoo loolu moom mooy ñàkk ci mbir mi te du ci mbir moomu rek bi ñuy fi wax affaire li nag yi mooy lycée armée nation yi même problème boobu la ñu bi ñuy wax ni dañuy généraliser enseignement langue nationale yi même problème bi ñuy wax naan dañuy dugal da ngay xëy rek jékki-jékki si mbedd mi sax ngay yëgee ni mbir yooyu am na ñun ñi nga xam ne ñun ay responsable syndicaux lañ nga xam ni ay acteurs yu yu yu am taxawaay lañ ci système bi ñun noonu lañ koy yëgee te loolu moom mooy tax chaque fois dañ koy dégg ba pare mu suscité toole loolu mën na ñàkk autorités yi nañuy waxtaan ak nit ñi ba pare taataan euh, xalaatu nit ñi loolu dina leen permettre décision yu bari yu ñuy jël suñ koy jël. nit ñi mën na mankoo nangu ko ànd ci te bu boobaa dina indi ay xam nga réew mu mel na Sénégal nga xam ni euh, nit ñi dañuy sëy te bokkuñu diine am na fi ay dëkk yoo xam ni soo fa demee même cimetière yi lañuy denc seeni néew que ñoom ñu nekk ci que ñu nekk ci ci ci ci que ñu nekk ci comment dire encore religion bi wala bële. Hmm. et réew moo xam ni soo amee ay ay fête mais fête yooyu yëpp dañ koy célébrer ensemble. Mm-hmm. xam nga réew moomu problème bi ñu bëgg a créer ci réew mi amu fi donc man lu may ñaan ministre de l'éducation nationale mooy que école yi nga xam ni problème yooyu dafa posé wu nañu woo nit ñi ñu toog entre quatre murs lu ñuy wax ñu waxante fa bâtir ay consensus avancé mais am na yoo xam ni du ci mbedd mi lañ koy rek réglé lu mel na ay problème mu diine lu mel na ay problème mu waaso lu mel na ay problème mu xeet dafa nekk ay question yu sensible hmm. yoo xam ni na nga koy adressé da nga ko war a xoolaat forme bi dafa am importance loolu suñ ko defee man leer na ma ni acteurs yëpp daañu xam ni ñun ñoo bokk lu ñu bëgg et que rapport defar kese moom moo yëkkati moo yëkkati ñëpp ñu def de sorte que mm. suñu ay doom vraiment ñu ñu tàggat leen pour que demee ressources humaines yi ñu soxla pour réew mi jëm kanam bu boobaa ñu mën ko ñu mën ko am. Mm. Euh, atum deux mille vingt quatre la ñu nekk teewul ba léegi abri provisoire yi ñu ngi fii Sénégal lan moo suy solution. waaw mais solution yi mooy que vraiment ñu taxaw temm pour éradiquer leen ndax nag euh, am na fi je crois que daaw la wala daaw jéeg rek ministre bi fi nekkoon Cheikh Omar Anne moom si boppam dafa jaaxle woon parce que dafa ni woon li ñuy def xaalis ci mbir moom dafa bari te moom constaté ni am na ébolution donc dañu war a xoolaat bu baax alal ji nga xam ne dañ koy mobiliser chaque année alal ji fan lay dugg loolu mooy benn deuxièmement il faudrait que ñu xool ñi ñuy tabaxi am na fi benn professeur d'université boo xam ne moom la ñu nommé woon muy diriger CEREC moom proposé woon na fi ay matériaux locaux yoo xam ne suñ ko utiliser mën nañu tabax ay classe ci njëg boo xam ne daanaka genn wàllu njëg yi nga xam ne moom la ñuy tabaxee écoles yi classe yi tey fi tey noonu la mais loolu dañu war a dem xool ñu mel noonu ñu xool proposition yi ñuy def ñu utiliser ko nga xam ni fa nga doon tabaxee fukki classe ak matériaux boobu mën nga fa tabax euh, ñaar fukki classe ainsi ba pare nag xaalis biñ ciy def vraiment ñu saytu ko ba vraiment mu bañ a dugg feneen fudul ci régler problème boobu je crois loolu suñ ko defee très rapidement effectivement donc mën nañu euh, def de sorte que abri provisoire yi voilà Ndongo Sarr maa ngi lay remercier ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. maa voilà ñuy fàttali ni Ndongo Sarr yow yaay secretaire général bu cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire ñu gën ko xam ci CUSEMS jërëjëf.